dalal xel yi rek rawatina yéen ñi nga xam ne da ngeen féete ak gëm sa bopp yéen ñi nga xam ne da ngeen bokk teg seen yaakaar ci coalition sàmm sa kàddu ay information jip na tey ji ginnaaw bi police yónnee ay nit ci sumay bërëbu liggéeyukaay ak ci yenn ci sumay kër parce que nekkuma fa woon euh, ku nekk ku tudd adjudant baaxul moo leen jiite ñëw na

mangi nek nekk cimetière Yoff te ku ne xam ban heure la fay dem kon dem di ma des D-Média yàq sa temps la parce que man des média ku ne xam ne je fa dem duma fa tek suma tank yaakaar naa ne léegi mu mat ñaar ya bima fa tek suma tank ak donc c'est juste pour dire à Ousmane Sonko qui veut utiliser la police et la gendarmerie la justice en général pour régler des problèmes politiques Ousmane Sonko vous manquez de courage man Bougane vous ne daw man ma say veux bu je vous fi fekkul nañu convocation heure les convocation dem police dinaa dem gendarmerie Ousmane Sonko je suis plus courageux que toi un ragal man kenn du jox convocation may wo ay jeunes naan leen servir leen de bouclier je ne ferai jamais ça Réumi, de dama fi am ay responsabilités de musulman politique dama fi def li ma fi de te musuma am ndombay tànk politique donc Ousmane Sonko quand tu veux éliminer un adversaire politique il faut que tu t'armes de courage il faut que tu te salisses les mains Ça loxo yooyu Ousmane Sonko boo boo nga xam ne ko parce que man bougan, boo ma éliminer non du ci caaxaan nga éliminer lepp lo génn wax ko tuddu dëgg boo génnee une heure du matin dinaa génn deux heures du matin boo génnee quatre heures dinaa génn cinq heures la preuve barki démb kaddu yi nga fi wax dene dañu falsifier ay données économiques bu Sénégal danga ko def ma génn ne waxoo dëgg tey jii suñu borom jox na ma raison parce que le nouveau représentant du FMI à Dakar de manière très claire et certes diplomatique wax na yow Ousmane Sonko et au vu et au su de tout le monde on ne peut pas diriger un pays ci manipulation mënoo jiite réew ci fen mënoo jiite réew ci taf yëngal mënoo jiite réew ci ay mensonges c'est pas possible Ousmane Sonko xeyna am nga yéene bëgg nga mais force est de reconnaître que mënuloo ñak mën boobu tey jii moo indil sénégalais situation bi ñu rassurez-vous lepp lu mu la jaral ci sa djim gogu pour yak réew man Bougane ak ñima ma wa coalition sam sa kàddu taxaw nañu fas nañu jakarlo ak yow yaangi jëm lu nekk pour élection législative yi ñu jëm Sam sa kàddu am ci ay jafé jafé man Bougane nga song xam nañu ne yaangi nekk di song barthélemy Dias ci benen fan mais rassure-toi c'est peine perdue cette coalition va libérer le Sénégal cette intercoalition va libérer les Sénégalais ci trajectoire bu bonne bi nga xamné yow sa cuune yow mi nga xamné ne té lu yaq yow yow Ousmane Sonko birna Sénégalais né 6 mois mu ngi ni nit ñi ñu ngi ci ay jafé jafé ku sa dund ko yow la sa dund ko ak ñi la wër mais les Sénégalais aujourd'hui cherchent le diable pour lui tirer la queue parce que réew mi metti na dundu gi gën na seer courant bi fal gën na seer tay ji la nit ñi gëna ami jafé jafé police beeg gendarmerie dem niñu ko don kaase ci ñi fi nekkon tay ji nga bëgg jël alkaati jël buum yi di leen utiliser pour uniquement satisfaire yow li nga bëgg yow Ousmane Sonko lolu duñu ko nang on ne l'acceptera pas niñu def ba xeexoon ñi fi nekk nonu lañuy ñuy defaat xeex la lu mu la jaral yow Ousmane Sonko pour yaq réew mi rassure-toi jaral nañu ko ñun danañu defar réew mi Ousmane Sonko ce pays les gens sont fatigués aujourd'hui avec le FMI yow Ousmane Sonko ak ñi nga pour diriger réew mi da ngeen d'accord ak FMI pour dindi subvention yi subvention yi bu ngeen ko dindé moy tekki ne wayafal day yokku moy tekki ne dund bi day yokku parce que kenn dootul subvention quelqu'un kenn dootul subvention dëwlin ça veut dire tout simplement ñin ñi ci guttal li ñu jëm way way comme mënulo inshallah le 17 novembre ñun wa Gëm sa bopp and ak wa coalition sam sa cadre ande ak intercoalition bi ak opposition bi fu way mën a taxaw nañu pour am majorité à l'Assemblée nationale pour que enfin ñu mën taxawal gouvernement bo xamné opposition bu Sénégal ay nit yu am kilifa ay nit yu xam fi ñuy jaar ay nit yu am parcours taxaw ngir sauver Sénégal parce que nak fiñu tollu problème sauver Sénégal tay ji réew yi ñu dendal ñu ngi ñuy ré ken waralu ko lu yow Ousmane Sonko réew yi nga xamné demb dañu wéggone Sénégal tey jii ñu ngi rétane Sénégal kenn waraluko lutax lu yow la Ousmane Sonko aujourd'hui jafé jafé yi nekk ci biir askan wi lan moko waral kenn rek la yow Ousmane Sonko tey jii wax nga waxa waxa wax bañu jox la réew nga delluwaat bëgg fi indiwaat yeneen coow ci ay mbirum falsification ay données économiques wane ni suñu fonctionnaire yi nekk ministère des finances duñu dara xamuñu dara loolu du dëgg tey du dëgg ëllëg jafe-jafe yi nit ñi dund jàppal ne coalition sàmm sa kàddu ak opposition bi taxaw nañu pour dindi ko mais comme yow Ousmane Sonko jàpp nga ne il faut nga éliminer ay adversaires politique jaar ci ay pratiques féodales jaar ci ay pratiques anciennes yoo xam ne nit ñi fàtte woon nañ ko yooyu nga bëgg delloo siwaat ngir indi buumu njaam ci réew mi ngir bëgg a falu buur ci réew mi on l'acceptera pas man Bougane li ma la waxoon démb moom laa lay wax tey yow xam nga ne moom Ousmane Sonko ragaluma yow Ousmane Sonko xam nga ne ñaar xamul ñett xamul waaye ñaar xam na yow xam nga ne man ragaluma la xam nga ne man gëwuma la faalewuma la donc Ousmane Sonko lépp li ngay nas pour suñu coalition sache que je suis au courant yow Ousmane Sonko heure boo ree wee la ngay wax ci man mu ngi ci téléphone je suis plus informé que toi et yow xam nga ne buma ma je suis plus informé que toi xam nga ci dara ci benen fan arrête d'envoyer des gens pour ñuy ñëw di waxtaan ak man pour nan ma wuy deugal bal bi dañu bëgg nga gisante ak mom. man Ousmane Sonko man bougan soxlawu ma la gis je ne veux pas te voir parce que jàpp naa ne aujourd'hui yaay au Sénégal jàpp naa ne aujourd'hui góomu robalé Sénégal donc dama japp ne tay dañ la war dindi ci Sénégal dañ la responsabilité et là, encore une fois xar suma que rassure-toi tu peux utiliser la justice tu peux utiliser la gendarmerie tu peux utiliser la police tu peux me mettre en prison parce que taille cette position mën pas la permettre lolu amul problème mais rassure-toi fofu nga nek dina la fa jël fofu nga nek di fa et inshallah le 17 novembre les sénégalais vont voter massivement pour vous dégager de là où vous êtes parce que les Sénégalais sont fatigués jërëjëf